seytaane ñu leen dëggalut nag lu leen dal ñoo ko teg seen bopp waaye nag am na ci sëriñ yii tam ñoo xam ne luñ dugal seen poste mu lañ yitte waaw loolu moom am na moom mënumaa xam ne diw li ca diw bokk na ci loolu moom am na waaw man nag yàlla bu ma ci bokk te yàlla bu sama njaboot bokk ci waaye nag am na de sëñ bi te loolu bari na de bari na lool ñoo xam ne xam nga li may wax rek maanaam euh, képp koo xam ne murit nga di woyoo murit te liggéey suñu Ismaïla bi muy liggéeyal sëñ Touba ñu ànd kook moom ci xeetu séeréer neexu la yow bëggoo sëñ Touba lu wér te bëggoo murit it yow xam nga li nga bëgg sa poos <laughs> waaye su bëggee su fekkee maanaam lu neex sëñ Touba rek nga bëgg ak lu yokk yoon bi mm-hmm. nga gis ñii ñëw di ci liggéey lu baax loo xam ne amu ci woon mm-hmm. muy yokk yoon bi loolu kay sëñ bi war na laa mën a neex nag mm-hmm. wax dëgg yàlla lu mu lay naqari kooku yàqalu la dara sëñ bi kenn yàqalu fi kenn dara ken ya kalu bikin dar wow. ken ya kalu bikin dar sering mu ngi mel ni jula ichi ci marché bi rek ku nekk sa war sek rek ngay jël di jaay lal di jaay ngeen sisaloo ku nek bu ñewé war rek lay lay jaay ki it kuy jënd itam ci limu bok rek lay jënd yow nak sering, dé sëriñ te bëggo benn sëriñ am mbolo bo dé siñ di bari mboro nga ni ah abrir la rek <laughs> nga ne diwa bari xam-xam nga ne daa rek waaw kon mbir mi ah loolu nag xam nga ci bari na ci nag waaw loolu mooy soxor loolu mooy iñaan loolu mooy ciis te loolu bari na ci boo ne diwa bari mbooloo mu ne ah ah ab riir la rek waaw mbooloo mën naa am te riir amul <laughs> mbooloo kay ba amee riir am ah, nga ne si diw ko bari xam-xam ne ah daa rek waaw loolu itam sëñ bi <laughs> mhm. dama koy wax rek wax naa ko ci nganu Dakar gi nee na leen. sama bokki wolof yi am na lu ñuy wax man duma ko nangu. boo defalee Sëñ Tuubaa loo mënut mu fay la lu la jomb. nanguwuma ma mën a nangu mooy. boo defalee Sëñ Tuubaa loo mënut mu fay la lu kawe sa njort. loo xam ne bi ngay def. yaakaaroo woon ne lii sax dina ci am yow di nga doon ngir yàlla rek ku def lu mu mënut kay mënatuñ koo fay lu ko jomb loolu wax bu ñaaw la la la ca tege itam di sikar naan maam Cheikh ma Fall nu ra gor deeti dabe loolu it wax bu ñaaw la maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëwee kan la doon dab dabut kenn dabut kenn daa liggéeyal sëñ Tuubaa ba am lu kenn amut ci loolu la rek keneen it kuy ñëw di ngay liggéey ngir ngir am lu baax rek bëgg yàlla rek ak bëgg sa sëriñ waaye daboo kenn ci kan la ñuy dab njëkkante amu fi njëkkante amu fi dab amu fi ndax koo xam ne ñëw na bo bu bu bu bu lu ma bëgg a mot téeméeri at nga door a ñëw bu bu doon dab noo koy dabe <laughs> waaye boo du dab itam doo doo def lu baax waaw Macky Sall bu ne woon day bañ a dab Ablaye dina nekk président <laughs> jeex na kon loolu itam wax bu yàqu la rek xam nga yooyu yëpp ay sikaru wax yu ñaaw ak sikar di wax loo xam ne lii du njulite loolu kenn xamut lan la te maam Cheikh Rafal waxu ko kenn mm-hmm. Mm-hmm. waaw murit yu bari dañoo xam ne maanaam mel Sëñ Tuubaa daa faat yooyu yëpp ay wax yu ñaaw la sëñ mm-hmm. Tuubaa mm-hmm. kan la bëggoon a mel ni moom déet bëggu doon a mel ni yonente bi de dafa bëgg a doon taalibeem sëñ na ma ne bëggu da mel ni sëñ Tuubaa bëgg doon taalibeem waaw mm-hmm. Cheikh Ndigal Sène mii di wax ak yow itam bëggu da doon Cheikh Ibra daa bëgg a doon taalibeem donc rek mu jeex waaye ñooñu bu ñu amul ñu mel ni ñun waaye lu ñuy tiitaroo lu ñu fekke rek du ne loolu la kon ñoom. ah biñ fi jugee. day yoon wi jeex na a fay justement loolu yëpp nag loolu yëpp wax bu ñaaw xalaat bu ñaaw ak jëkk te bëggoo kenn jëkk ak sama am liggéeyal la ba nga baaxle te bëggatoo kenn baax baaxle yooyu rek la waaye ñi baax moom ñi baax yëpp xam nañu ne yàlla mi doon joxe deexut màggatut telewut te la mu doon joxe tey la ko gën a mën te muy dëgg yàlla moom yàlla moom ba ila yowmal xiyaamati damay wax sama doom yi ni xam naa doom yi soxna boo gis di moom siis rek mooy environ waaye yéen di xam naa xam naa sax di ngeen ci bokk ndax loolu moom daa baaxoo ci doom yi soxna ndax doom soxna boo gis daa defe ni ci ki mu jëli daal moom kenn mën a tudd mel ni waaye ma ne waaye bu ëllëgee it yàlla mën naa feeñal ca bambara ya wala ca pol ya wala ca keneen ya ñoo xam ne bu e bu ngeen ko bu leen ko weddi parce que yàlla ak wolof yi ni ñu yàbbee woon séeréer loo wax ñu ne séeréer mm-hmm. nangam mm-hmm. léeb bu ñuy léeb léeb bu ñaaw di bañ diina ñu jibal ko ci ah, séeréer yi te te kat sëñ bi du nii ma nekk séeréer bi waaye askan yii ci Sénégal amu ci ku gën séeréer amul de mm-hmm. parce que dina la ci xamal tuuti séeréer ba mu xamagut jaamu yàlla itam xamoon na ne yàlla am na te balaa tëdd yàlla la doon tudd yàlla xam na ko de ah, te seen ñax lañ doon dunde te amuñu woon tappale mhm. te loolu nag boo ko dundee ci lislaam mu jeex mhm. te it nag sangara bi ñu doon naan te duñ ko nebbu mhm. dañoo nekk nitu dégg rek waaye ñi gën a mën a naan sangara bi di naan sangara ci rob <laughs> yeeg néeg yi te di ko nebbu séeréer <laughs> daa nekk ci dégg bu nga xam ne buy def lu jub ñëpp yëg ko bu defut lu jub it ñëpp yëg ko moom moom xamul dembetu ndax moom ci dégg la nekk du ragal nit yàlla lay ragal te séeréer bu la mosee wax ne roog sama refa maat yàlla rek ay buur wala il loola moom dina ci am na bu mosee tàngoor ba ne yàlla rek ay buur loolu moom boye ba bàyyi ko dénk ko rey mbaa mu rey la wala mu am ca kenn mënu ci dara te loolu nag loolu lu caaxaan de yàlla rek ay buur <laughs> séeréer bu ci bu ko mosaan na roog sama refa maat uh-huh. roog sama refa maat séeréer du ko foye de maanaam ñoom ñu ñu xamoon yàlla lañ ndax balaa ñu doon wax loolu day la ñuy wax dañ ciy dogu ba noonu dañ ciy dogu waaye eh, tey suma classe gi buñ naree def nañ sax yàlla la ñuy waat ñeneen ñi balaa ñuy gën a mën a fen ñu génne sëñ Fallu wala ñu génne sëñ Tuubaa wala sëñ <laughs> ku la gën mën a génne sëriñ moo la gën a mën a fen mhm. waaw loolu moom ci sama tàll bi yaa ko xam la gën a mën a wax ni barke borom moo la gën a a tëj <laughs> ah déedéet bu wér ah moom loolu <laughs> xam xam naa bala bala muy tëj sax eh. question foofu mu tuddee taalibe yi question lay mm-hmm. mooy ban secret la sëñ seex ndigal seen tërbiya ay taalibeem ba fu ñu toog daal da ngay gis yar bi te doo leen dégg ci yenn scandale Mm-hmm. <laughs> amiin yaa rabbi alamin yàlla na ko yàlla def mu ñu bañ leen a dëkk ci scandale man de wax dëgg yàlla am na sax benn mbake mbake bu ñu waxtaan tey boo ba ñu yegg ci ki fi yendu mm-hmm. ma ne ko man aw ma secret mm-hmm. xam naa sama secret lépp lépp lépp lépp lépp lépp billaahi wallaahi taalaahi ñaar la rek te ñaar yépp benn la muy yàlla sëñ Ismaïla loolu rek moy sama secret sëñ bi manam ragal yalla ba mu wer mané ragal na yalla gem ko yit bu mu ma rafet ndortu ni ragal gem na ko bog ko yit bu mu rafet ndortu ni bog na ko jël sëñ ismaïl itam tegg ko fo xamné ne bi tegguma fa dara billahi wallahi taala moy sama secret te li ma wax lii ma wax daal moo nekk ci man xam naa sëñ sëñ Ismaila moom fi ma ko teg mhm. ci sama xol mhm. ak sama jëf mhm. ak sama mbogeel ak sama sama activité ci moom amul dara luy dund ma teg ko fa du doom du soxna du xarit du taalibe du beneen sëriñ it sëriñ yëpp laa gëm sëriñ yëpp laa bokk waaye nag fi ma ko teg moom teguma ko kenn ci biir te naruma ko it <laughs> waaw sëñ Tuubaa nag bokk boolewuma ko ci loolu de señ Touba boole parce que sëñ Touba moom mooy sëriñ sëñ Ismaila sëñ Touba awaa sëñ Ismaila feeñ mooy sama sëriñ ndax man murit laa juddoo alhamdulilah waaye bi ma jabloo ci sëñ Touba nag dama jël nag si sëñ Ismaila nag dama ko jël nag dëggal ko sama diggante ak sëñ Touba waaw loolu sëñ Touba boole ma ci loolu boole ma ci Cheikh Ibra boolewu ma ci mag yi dem déedéet man ñii dund laay wax ñii dund ñii dund laay wax de. ñëpp laa gëm ñëpp laa bëgg ñëpp laa d'accord ñëpp am ma man du ma kontar benn sëriñ du murit du tijaan du xaadir lay ndax xam naa ne yàlla moom moom lépp. Mhm. te lu ko neex mu defal nit waaye nag fi ma teg sëñ Ismaila moom teguma fa sama soxna mhm. teguma fa sama doom teguma fa sama taalibe teguma fa xaalis it teguma fa dara daal tus dara. Mhm. loolu yàlla nag bokk ci moom yàlla moom xam naa ne moom a bind moom ma booleek sëñ bi. waaw yàlla moom. bu ñuy wax duñ ko boole ci mbir mi yàlla moom kenn la moom kooku moom maam Cheikh Rafal bind na ko sax ci ci ci ci jasbul murid waaw ci allahu boobu moom nee na alif boobu nga xam ne taqalewu dak leen mooy yàlla maam Cheikh Rafal loolu la wax ku defee ne maam Cheikh Rafal da doon bokkaale sëñ Tuubaa ak yàlla da ngaa xamul li xew ah, moom Cheikh Rafal weesu na bokkaale <laughs> kon nanaa kon ñu jeexalee ci dajeef sëñ Ismaïla Diouf ak sëñ Cheikh Ndigal Sène ñu ah loolu dina yaatu de. ñoo ma ñu si tuuti rek. sëñ <laughs>